ñu ngi leen di nuyu bu baax. léegi nag moo am ay yëngu-yëngu yu bëri yoo xam ne mi ngi am ci biir dëkk bi te ñaari suñu doxin moom day doon loo xam ni lu yëngu ci kër rek au lieu que ñuy wax dañuy woote ñu nekk foofu ñu xam version yi nag bari na ginnaaw bi ñu nee doon ngeen def ndigalul sëriñ bi ba da ba bakkandoot ca am na yu bëree bëri yoo xam ne daal waxee nañ ko noona léegi ginnaaw bi ñu leen jaalee eh, ki faatu ci yéen yenn leeral nga mën a indi ci mbir yi xew. waaw waaw ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax waaw noonu ko waxee. Mm-hmm. Euh, liggéey bi moom kenn na xam ne ndigal lu bàyyi ko sëñ Muntaxa la ñëw si sëñam di Fall hmm. mi nga xam ne mooy jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall hmm. bi mu ñëwee ni ñu ko xamee ñun ñëpp yàgg nañ koo wax hmm. bi ndigal li ñëwee sëriñ bi da koo bokk ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibrahima ndax dafa kenn ku ne daa yónnee si yow ndaw xamal la ndigal li sàkku nga ñëw ànd kook moom ñoom ñëpp ñu ñëw wuy si ko si ànd ak moom si ndigal li ñu def ko ay kuréel yoo xam ne mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gaa ngi si muy fukki buntu kër yi ak benn mm. kenn ku ne yaa ngi ci biir kuréel gi mm-hmm. tànn nga tànn nga ñoo xamante ni ñoom nga tànn jox ñu ko mm. ñu ànd ak yow si liggéey bi mooy mm-hmm. fukki buntu kër yi ak benn li dale si kër maam Saliou Fall moom daaru xafoo doon rakk Cheikh Ibra mm-hmm. ba si kër Serigne Ngunda Fall mi nga xam ne mooy jaatu maam Cheikh Fall ak mbooleem seex yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal mooy képp koo xam ne ab seex nga te bokk ci kër Seex Ibra mm-hmm. waaye sëriñ bi waxoon nu yaatal ko ci mbooleem nag mbokki taalibe yi muy mbooleem ñi nga xam ne seeni maam mm-hmm. dañoo bokkoon ak Seera Faal Sëñ Tuubaa di liggéey mm-hmm. ñenn ñu bari ñu dem ci ñoom xamal leen ni liggéey bii ndigal lii kat sëriñ bi daa jaar bunt bi ci Seex waaye ñépp ko bokk mm. lu jiitu loolu ñu demoon ci mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi ñi nga xam ne ñoo bokk ak Sëñ Muntaxaa sëñ Touba. kenn ku ne ñu dem fi yow it xamal la ne ndigal li ni ni nu ko sëriñ bi joxe ak ni nu xalaate ni doxel doxale ko noonu mooy li nu sëriñ bi digal joxoñ nu ko. ñu waxtaan si ak ñëpp rek bañ am si mu mel ni. ndigal li moom umpul kenn ñëpp yëg nañ ko. bi loolu jàlleet yaatal nañ ko si mbooleem taalibe yi mbooleem àdduna fu nit nekk ci àdduna. yaakaar naa ne bu fekkee ni Touba ñor na la. ndigal li sëñ Tuubaa ñor na la dégg nga ndigal loolu te xam nga li si sëriñ bi bëgg ak lim si jublu. Mhm. ndax liggéey li moom du lu yees yàgg na sëñ Tuubaa ko bëggoon si dëkkam bi Cheikh moo Moussa ñëw di ko suuxat. ba mu egsi si seen Cheikh Modou Muntaxa. Mhm. moom it muy dundal loolee mooy ñu sàmm war may dëkk bi ak war may ñi nga xam ne ñooy njabootu sëñ Tuubaa gi. d'accord loolu nag bi nu ko sëriñ bi santee ñu nekk si. Mhm. dañ koo def ay kuréel. boo ko seetee bu buñ bëggee dem rek si liggéey bi dëgg-dëgg. waaw mooy dañ koo yaatal dañ koo tasaare ci semaine bi bis bu yàlla sàkk bis bu ne ci semaine bi lundi ba dimanche mhm. bis bu set am na kuréel goo xamante ne gi ñoom ñooy xëy nekk ci saytu boobu mhm. terewul nag yeneen kuréel yépp ñoom ñu ngi taxaw waxtu wuñu leen wooyee fenn ñu jóg fekk ci leen d'accord li xew démb nag mhm. wala bëkki démb ah, dafa am bërëb boo xamante ne bii dañ faa demoon saytu ko lu jiitu démb nag wala bëkki démb Euh, dafa am bërëb boo xamante ni bii dañ faa demoon saytu ko lu jiitu loola. Mhm. saytu ko ba gis ni daal am na lu fay xew wala lu nu fay def loo xam ne méngoowul ak li nga xam ne moom la sëriñ bi digle. Mhm. bañ ko saytoo ba am si lu wér. Mhm. si lañ si la kuréel gi nga xam ne ñoo waroon a jóg si lañ jàpp ñoom ni dañu faa war a dem. kookee nga xam ne wala ñoo ñee nga xam ne ñoom ñoo ñàkk tënku si loola. ñu interpeller leen indi leen si kër sëriñ bi. su ko defee ñu waxtaan ak ñoom si nu ñuy def ba mooy bàyyi loolee. loole moo fa yóbbu woon mbooloo mi. d'accord ba ñu fa demee nag. ba am si ñaar ñoo xam ne jàpp nañ ni ñoom ñoo doon def loola ñu téye leen. bi ñuy génn nag si la ñoom ña biir nag daal di xam naa ni seen deret yëngutu. ñu daal di am am xalaatub daal jàmmarloo ñi nga xam ne ñoom def nañ li ñuy def ba wan leen naaw si lañ tàmm si lañ jël nag ay kiwit di tiire ay bal mhm. tiire nañ ñaari bal yoo xam ne dañ koo tiire si kaw fekk booba ñu ngi jàkkaarloog mbooloo mi ñenn si mbooloo mi mhm. waaye booba lëndëm na waaye ñoom boobaat ñoom ñi ngi seen mbooloo mi waaye mbooloo mi ñoom seenuñu leen mhm. te doonuñu mbo doonuñu woon mbooloo mu bari moo xamante ni mii moom mën nañoo loolu ñu wax lépp mbooloo ma mën nañ ko ndax benn groupe moo fa demoon d'accord donc euh, bi bi mu bi mu dóoree ñaari bal si kaw. ñetteelu bal bi nag si la visé benn murit boobu nga xam ne moo wàcc muy Moustapha Niang. Mhm. fekk booba bi mu tiiree ñee ñenn ñi dañoo reculer. waaye moom comme lëndëm la te ñoom yoruñu woon ay ngànnaay. Mhm. yoruñu fetal. Mhm. te ñu ngi leen di tiire ay bal. te lëndëm na. ñoom li leen yoon santoon mooy ñoom ñu reculer. waaw waaye sëñ Moustapha moom it bokk si ñi nga xam ne xam naa njàmbaar gi. waaw euh, ak fit wi mm-hmm. ndax ba moom moom bokkutoon si ñi nga xam ne ñoor wala bokk xaw naa xaw naa gënoon naa jege daal ki nga mm-hmm. xamante ni kii moo yoroon moo yoroon ngànnaay loolu d'accord waaw te njortul woon ni sax loola moom dala ko def si la daal li soqi bal bi si kawam duñ mm-hmm. ko soqeet si la si la si la daanu d'accord bi mu daanoot ñi si ginnaaw ñi woon si ginnaaw daal di dikk jël ko àndale ko ndax booba bëgguñu leneen xew si moom te it bëggoon nañoo xalaat ba xam mën nañ koo sauver wala déet. ndax hmm. jàpp nu woon ni sax euh, dafa faatu ndax xam nga balu fetal moom dafa gaaw. waaw bi nu ko xëccee nag ba mu sori tuuti si lañ gis ni kii nag moom. Euh, mi ngi aw si yoonu ñàkk bakkanam. Hmm. ñun niñ ko jekkalee ba mu jekk. Hmm. ndax ñoom it dañoo continuer di di di di di di tiire ay bal. ñii tamit nag daal ne gannaaw ñu ngi tiire nag ñoom it nañ daal di riposter. Euh, lépp daal noonu dong la demee. ñoom li li li ngeen leen fekk te seen bi di ko aaye dañ ko doon tux wala dañ ko doon jaay. loolu lu ñu doon jaay la foofu moom dañ dañ ko fay jaay. ko la ndax ndax ndax laataa ñu fay dem. Mm-hmm. dañ faa yónni ay dañ faa yónni ndax ñun dafa am yoon wu ñuy liggéeyee. Mm-hmm. bu ñu bëggee saytu dara si barab. Mm-hmm. ñu dégg ko fa wala dara. dañ fay yebal ay ndaw yoo xam ne buñ fa demee duñu xam ne ñii. ci ñoom ci ñun lañu bokk. d'accord moom am na ñu fa dem. ñaari yoon ba ñetti yoon ñoo xam ne dugg nañ fa jënd ñu jaay leen. d'accord loola ñooñu jënduñu ko woon ngir di ko jëfandikoo dañ doon jënd pour xam dëkk-dëkk ba xam fii dañ fiy jaay wala déet am si lu wér. waaw waaw waaw loola ko woon ngir di ko jëfandikoo dañ doon jënd pour xam dëkk-dëkk ba xam fii dañ fiy jaay wala déet am si lu wér. waaw tax ñu ñu dem fa waaye moom liñ suñu liggéey bokkut si ñu tàbbi si dem si ay kër di saytu. d'accord waxtu ñu duggee si kër rek dafa fekk ni. Euh, booba saytu nañ lu fa nekk ba xam ni loola ma nga fa si bu ñu soog a jóg tàbbi foofa. ndax ñi defoon jëf jooju jàppees na leen ci waxtu wi. waaw ñooñu moom yoon teg na leen loxo ñoom ñu ngi gendarmerie. Hmm. waaw jàpp nañ ci fukk ak benn. Hmm. yoo xam ne fi mu ne nii. ñu ngi ñu ngi ñu ngi si loxo yi loxo yoon. loxo yoon. waaw ñoom ñu ngi si loxo yoon. waaw baax na. Hmm. baax na sëñ Dame Soda Fall am nañu mbégte euh, lool ngir déglu li xewoon fële ndax wax ji bari na ci réseau sociaux yi mais nii moo gënoon nag yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci mbir mi te ñu jox leen liggéey bi ñu déglu leen kon am nañu mbégte bu baax ci euh, leeral yi. waaw jërëjëf nii dafee baax ndax dem ba léegi li tax wax àdduwuñ si dañoo amutoon ndigal. waaw ndax ñun gannaaw dañ ñuy liggéeyloo rek suñu defee li ñuy def ba noppi. Mm. ñun ñoo diggee woon ak sëriñ bi ne bu ñu ci faatoot ñun dañuy jàpp ne dañoo sayit rek. kon bu ñu demee ba loolu am si kon du duñu duñu duñ am baat lu dul ni dañ koy delloo sëriñ bi nga xam ne moom moo ñu doon liggéeyloo. d'accord moom nag la ñu doon déglu ba démb si bëccëg. mu hmm. xamal ñu ne ñu. Hmm. daal li li li si am lépp yëg naa ko. Hmm. kon yéen na ngeen dem toog te déglu ma. li si war lépp dinaa ko def. baax ñun nag ñu ngi si ndigal loolu rek. mboolem njabootu Seera Fall gi ñu ngi toog di déglu. ndax euh, loolu la ñu diggee ak moom moo tax it defaatuñ benn acte. Euh, waaye loolu moom ñun mënoon nañ koo saafara suñu yoonu bopp waaye nag dañoo moomut suñu bopp. dëgg la moo tax faawu dañuy toog déglu sëriñ bi rek.